je pense que fi ñu toll tey képp kuy xeex ku ñëw di investir ci seen dëkk ku ñëw investir dëkk je pense que mooy li ma la wax rek jaaxil nga investissement ci dëkk dañ ko war a jàppale encadré ko suñ doon xool tey man su ma sañoon man maa ko fii créé te loolu laa ci amoon yéene ci batiment bi fi nekkoon ni ñu ko tabaxe woon pour def fi supermarché mais defuma ko parce que dama fi bëgg créer ba créer loo xam ne nii suñu yeneen mbokk ñu ngi koy def ma leen di concurrence mooy teranga bi nekk fële wax dëgg yàlla di ko félicité demoon nañ ba un moment waxtaan pour moom mu ñëw installé mais ñun muy osa muy Carrefour mu la ay fay de supermarché ku mën a doon ñun notre rôle chambre de commerce man jàppale ay investisseurs ñu investir fi la ah comme li ma lay wax rek bu ay nit fekkee loo xam ne nii mën na jël trois cent emplois ñëw na fii bu dikkee produit locaux yi mooy li may wax produire localement et consommer localement suñ ko munta am léegi nga ne ok déedéet bu fi taxaw te yow muy xeex naan bu fi taxaw yow booy ñëw fii yaa ngi jaar mbuur jaar ca Auchan ba wala nga jaar foofu sa chargé sa oto ba mu fees ñëw ça veut dire que mooy yow soxorewoo sëriñ bu Kawlax nga soxla ma leeral ñu bari Auchan man amatuma ci benn responsabilité man Auchan fay na ma cinq ans cinq ans de loyer wax naa la ko làqu ko waaye cinq ans yi ma fay bâtiment bi mu toj moo gën a cher deuxième fois autorisation bi tax mu tabax nga xam man moo sama responsabilité top naa ko ba jox ko autorisation bi nga xam ne koy may mu installer comité régional bi accorder nañ ko ko koku suba fan yi da ngeen dégg ñu jox leen détails yi beaucoup plus détaillés